ci ñi doon candidat moom Macky Sall moo koy tànn waaw bu dee parrainage bi moom deñul ñoom man opposition bi damaa yaakaar ni ñoom gémmi ña leen jàpp quoi opposition bi non dama leen dañ ma jaaxal man opposition bi du ñu jug àndandoo nekk benn xeex parrainage bii. est-ce que nga xam ne système de filtre la. da nga naan ñi ñi bëgg a bokk mais bokk ak ñàkk a bokk Macky Sall moo koy choisir ak police ak ak justice am mais élection 2019 fi la fekk bu nu Abdoulaye Diome dafa ne candidat yi duñ passé juróom. Candidat yi passé wuñ juróom Macky Sall day filtré léegi ñoom naka lañ nekkee fii ku nekk di di telli telli mel ni bool bu daanu ku ne naan candidat laa te ñu war a def benn front comme ni ko waa ne ko ni ñu ko defee woon ci jamonoy Ablaye Wade di interdire ministre de l' intérieur mu organiser élection yi parce que Antoine Diom il n' est plus crédible pour organiser fi élection jël koo xam dafa neutre ku politique mu te loolu pour loolu am il faut opposition bi man koo doon benn. mais li ma wax rek kenn ku nekk ci ñoom yaa ngi yàkkamti ñu damm say laafu morom ba nga jël bësu kooku wala nga jël ay électorat am te loolu tey ñu daaneel diw pour nga am ay électorat am taxul nga am électorat ñom ñep ci jeu bobu lañ nek motax tax Macky Sall jeu boobu exactement leeral ko jeu bobu da koy arrangé euh, jeu bo xamni dañuy disperser li nga xam ne modi di voix yi ci jeu boobu la donc Dakar d'accord euh, candidature bu ki nga xam ne modi bu di Fall non non d'accord na sen kandi candidat yi nu gëna bëri gëna a baax ndax ay juma jang jaxate nek nañ fi candidat ci nguru Macky Sall ci nguru Macky Sall ngay gis ay parrainage ay système de filtre tay ci caution bi rek filtre la woon hmm. parce que caution bi million millions yi ci laaj bari na ñaari filtre la Macky Sall teg Macky Sall dafa teg cochon bu dix teguñu si bu tegal laat leen parrainage te loolu yëpp système de réduire les les les les les candidats la ndax parti au pouvoir su candidat yi bëree du ko arrangé nu mu ko gën réduire noonu lay def te daf Macky lu gën a lay def te daf leen ko teg ñu nangu te gor lu. Hmm. luñ ko teg mu na ci imposé leen parrainage. est-ce que pour gaawal système de vote bi. non non non non non Macky Sall yoonam nekk si système boobu ci la ci la ci la gis nga man opposition bi parce que est-ce que ça nous duñ complice complicité Macky Sall li ni parce que mënu ma nangu Macky Sall. Hmm. musul maanaam bu doon parrainage kese moom mën ne bañ a président Le hmm. code électoral bi Macky Sall falu Macky Sall da koy le Macky Sall constitution bi mu fallu, Macky Sall da changer. Macky le système de vote bi mu faloo Macky Sall da changer ko mais su fekkoon dafa bon moom du ci fallu. mais opposants yi tamit dañ sais parrainage. lan mooy ndeyu parrainage Fallou lan mooy ndeyu parrainage nga xam ne tey ay Juma Jëng Jaxate ay Amsatou Sow Sidibé ay ay kii ay Allahu Wahidun ah, papa yi kii c'est Abdoulaye c'est Abdoulaye Dieye ay booy lañ mais ku bëgg a doon candidat da ngay doon candidat mais ci nguuru Macky Sall lañ ñëw premier ministre ne candidat yi duñ passé cinq candidat yi passé wuñ cinq mu ne gagner à 58% ñu gagné à 50 kon limay wax. est ce que évolution du monde est ce que jàppoon na war a mën a euh, saa su di. Euh, euh, réadapter par rapport ak ak tolluwaay jamono. Fallou CEDEAO ci bopam nga xam ne Macky Sall fa la jokk. Hmm. ñoo ne ko sa parrainage bi c'est antidémocratique anti démocratique. sa parrainage bi baxul baxul ci démocratie rew mu am démocratie am une opposition forte président bi parti au pouvoir do fa imposer parrainage opposition bi ñoo déssé fort opposition bi ñoo déssé am fulla

mais dañuy yakamti sax ñu kale ma ma dem ma danaan yalla nañ kale paate ndax ma jël ay ma ma jël ay ñu ko noonu la te du démé nonu c'est le choc des ambitions. légui nak hmm. Macky Sall lool mom mo ciy profito il faut qu'il soit intelligent Macky Sall bu mu leen gëna nek nit. Hmm. te je pense qu'ils sont plus intelligents que ça ñom gi Marius Sagna ñoo doon génn di ko xeex ñu leen di tecc ci kasso bi mais pourquoi parti opposant yi fi nek yépp ñu manko nek ben mais stop Macky Sall parrainage du fi am beneen bi ñu ne ko bun euh, Antoine Diome ministre de l' intérieur du organiser élection yi pourtant jamonoy Abdoulaye non noonu lañ defoon 2000 2000 noonu lañ defoon Abdoulaye était un démocrate mais euh, moo jël élection yi teg ko ci loxo koo xamante ni il est neutre tey moo tax Macky Sall ñëw mi accéder au pouvoir kon Macky Sall su ñëwee tegal leen ay ndëgg sërëx ñoom opposition bi ñoom tamit opposition bi ñu jël ndëgg sërëx boobu bàyyi ko muy jàll kenn ku nekk naan bu dul man du baax mais Sénégal du dem il faut que ñoom ñu gëm seen bopp manko nekk benn xeex cause bii. est-ce que jàppoon ni euh, la guerre est trop tard parce que li tax ñu bàyyi ko mu dem en 2019 est-ce que jàppoon ni euh, la guerre est déjà trop tard que ni mënu see dellu ginnaaw par rapport ak parrainage parce que si euh, ñu si ëpp nag ñi ngay wax ni pour ñu soobu si xeex bi ñoom si région yi ut li nga xam ne moo di ay parrain waaw moom laa la wax dama ne la outil parrain taxut a bokk. Hmm. gis nga suñu bàyyee nii mu continuer barki Mouhamadou hmm. Rasulaay Macky Sall dina Macky Sall du mës a jàkkaarloog sénégalais yi naan leen damay def troisième mandat pare wu ko xam na ni loolu mënu ko dugal ci bopp sénégalais yi léegi système bu muy teg. Hmm. mooy dèjà instant yi def na chamboulement am teg na ay nitam fan leen bëgg a teg. donc day bàyyi ba jot heure déclaré jot mu déposé bosam gars yi validé ko. ñu dem ñu dem parrainage mu éliminer ñi ko neex dem ak ñoom élection gagné leen dem barki Mouhamadou Rasulaay Sénégal fii Macky Sall kenn ko gagné ci élection. lii man maa la ko wax boudé élection kese gaay yi mënuñu gañ Macky Sall parce que Macky Sall comme 2024. bi mu togué deux mu dem 2024 dina ko gañawaat wat suma juumul 25 février xaw mars la tok 2012. Hmm. février mars avril mai juin mu commencé juin le commencé tek ay stratégie yu mu yu mu faluwaatee 2019 manam Macky Sall li daj ci naka lay defaat ba amaat deuxième mandat lim ci daj bu ko dajoon ci réew mi Sénégal moy dàq Paris manam Macky Sall bi mu faloo rek mois de juin la tàmbalee teg ay stratégie yu mu faluwaatee 2019 imaginez juin 2012 ba 2019 kon jàppal ni 7 ans yu njëkk yëpp Macky Sall mu ngi doon tek ay raccourcis ak ay cal yu muy faga parce qu'il avait dit je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression Macky Sall len leen léebu leen daa jàkkaarloog ñom les yeux dans les yeux mu ne je vais vous réduire léegi Macky Sall ban méthode la am ban doole la am bu mu mën réduire les opposants lu justice bi kese ay magistrats yu ko neex fal ay marionnette dem ci ay position am ñu koy rëkkal mm. ay ndëgg. Mm. mais nguurum Ablaye Macky Sall nu mu ñàkkee démocratie loolu opposition bi dama leen ciy condamné parce que mag lu mu nangu ñu teg ko ko dagan na te bii yàlla moo ñu dimbali rek Sonko ñëw xaw dëgër bopp mais bu du woon Sonko opposition du am Sénégal xoolal 2019 Macky Sall ñi mu dama noonu doon élection fàllu. Mm. mais nu Sonko moo ci nekk du opposé. moo tax boo nit ñi jàpp ko moom moo liggéey lu ñu jàpp ko moom moo liggéey li tax jeunes yi ko moom moo liggéey am ci parce que moom moo constant la constance dafa solo fàllu constance mooy nekk ci dynamique pendant des années Tall mii ministre des affaires étrangères xam di nga ma laaj ci li Tunisie irresponsabilité même pas quatre ans même pas quatre ans même pas trois ans la taxaw ne il n'a pas droit au troisième mandat point Macky Sall amul sañ-sañu def troisième mandat même pas trois ans taxawaat na dem ma dégg ko mu ne Macky Sall amna droit ak troisième candidature am ndax deux cinq deuxième quinquennat la. Ousmane Sonko na 2016 xaw 2014 ba léegi bi mu sosee partem ba léegi mu ngi ci constance bi mu nekk mooy au côté du peuple nek ci opposé di opposé opposé bu dëgër. Mm. bu dul won Ousmane Sonko tay ji opposition dootul amati Sénégal motax limu am daf ko mérité parce que mom motax démocratie di régner Sénégal parce que tay Macky Sall limu mu bëggoon su amone moy démocratie du amati. parce que Macky Sall moo je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression Macky Sall il n'a pas les outils amul d'or amul fit bu mu ken di le justice dong le mën utiliser te il l'a fait et il a réussi sur Karim Wade il a réussi sur euh, Khalifa Sall il a réussi sur pas mal de gens yo xam sax daf leen a ñu ñëw rejoindre APR dafa am ñoo xam daf leen yoral ay dossier judiciaire ñu xam ne bu ñu ñëwul ñëw ci moom mu mu tëj leen am ñoo xam daf leen a ger ak xaalis kon Macky Sall lii rek la mën a réduire opposition bi mooy xupp xëpp wala wala toroxal tëj kaso te il l'a tenté sur pas mal de de de gens exemple boobu nak la sénégalais gis ñu bañ mu jaareel fa Ousmane Sonko Lolo waral Ousmane Sonko di résister ba légui. kon buñu bëggé xam lan la Ousmane Sonko défal sénégalais ak ndaw ñi bañ am confiance mom top ko nañu xol parcours Ousmane Sonko constance bi mu andal ak limu endurer nga xamné bu doon marionnette la wala mu nekk ko xamné tapette la wala mu nekk ko xamné intérêt bopam rek ko taxaju. Mm-hmm. kon tay du endurer lu metti li yépp muy endurer. mais daf ko daf ko dafa dund lu metti ngir opposé ngir démocratie Sénégal en même temps parce que tay Ousmane Sonko bu fi nekkul woon mm. mais kan moy opposé waxal rek nañu waxante dëgg kan moo fi opposé ku dul Ousmane Sonko Sall mi ngi fi ñoom Barthélémy Dias Khalifa Sall mi ñu yóbbu frigo nii nga xam ne moom bu ko Macky Sall baalul amnistie ko wala mu kii àll bi di di campagne man maay wax ak yow fi mu toll nii moom destin ci loxo Macky sàll la nekk moom ak Karim Macky Sall moom moo lay neex par A ou par ou si ube ñoom dina nekk euh, candidat. damaa bëgg nga bañ maa tar ñu bañ a tardel seen bopp opposition bi ñu ngi raté seen combat seen combat mooy ñu ñëw fii réunir xeex Macky Sall ne ko doo bokk ba pare dindil parrainage bi ba pare Antoine Diome du organiser élection yi lii mooy combat primaire bi suñ ci paree nag doo ko uti nit ñi mais yow nan ngay demee di sàkku nit ñi te xamagoo ndax yow da ngay bokkam doo bokk sa bokk nekk ci loxo président bi nga xamante ni moom warul bokk. alors fi Moui Sonko muy muy euh, muy euh, Moui Khalifa Sall tant qu'ils sont destin ci loxo Macky Sall la nek parce que Macky Sall organise l'élection, mon ministre de l'Intérim, hmm. mon cours séparé cours euh, cour justice am ñoy parrainage te ñom kuñ ci ne doo noy ñaata yoon la fi ñew ñu kon primo moy fexé ñu dindi parrainage parce que question de culture du démocratie du dëgg du yoon Macky Sall bu parrainage amoon moom du du nekk président tey. Sonko Sonko na jiitu ci combat bi. lan Sonko na jiitu ci combat bi Sonko moom moom déjà moom il est déjà au front Sonko boo gisee sax kalkal yi ñu ko tegal nii yëpp moo tax combat yu bëri parce que il ne peut pas être au four et hmm. tey ñu ne ko yàgg Adji Sarr la suba ñu ne ko Mame Mbaye Niang la gannaaw suba ñu ne Sonko dañ ko dañ ko baajee dañ ko baajee maanaam moo tax ma naan Sonko ndeysaan li waykat ba waxoon. Hmm. ku leen juróon yërëm leen ndeysaan xaw ma Daaro Mbaye la. tàmbalaay saa boobu daaro mbay lay doon xooma rek si ma nday may jit ma jin ma mbëri am woykatu ancien yi hmm. ne woon na xaley Sénégal ku leen juróon yërëm leen waaye ba laay Sonko ku ko jur yërëm ko yedd yërëma ko gën moo tax su ma gisee yenn kilifa yi wala yenn nit di toog naan dañuy jéem yedd Sonko damay am lu ma naqari parce damay xam ne yedd yërëma ko gën Sonko liñ ko teg yëpp ci ay toog maanaam imagine Sonko mooy seul maire mooy seul maire boo xam ne téye ko ci réew mi ndax caaxaan yi muy dund ay injustice yu méttee nga gis ñoo xam dañuy naafeq ba dee toog si naan dañuy jéem a élargir hmm. jamonoy Abdoulaye da nga daan dégg góor gi dee naa su leen ko Sonko bu nee garsa garsa sax ñu ne dafa violent fii gis naa fi ñoo xam ne ñu ngi toog ci plateau yi tey di xas Sonko ñoo doon ŋàbb keesu néew keesu néew di ko indi manifestation naan góor gi dee na sul